الذي يسلي على نبي المنتقى مصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والسب ومن ولاه وأمر الأملاك عيدا بسلا علي سعيدا بسالك الولا ثم إلينا وجاء الختاب من وأنفسا أتابا فقمت إلى تسالي أمري جميل جل ان مثالي يا من الأنبياء نصلي على نبينا محمد الباب الأولى إليك مني بزر المخدمه في خدمتي لشيخ خديم الخدمات يا الله أبدا وسلم على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والله وزبي في الآل والمال عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خيره لهم وزل يا رمان والتسلما على الذي تقدمه خط لما سيدنا محمد والله وسبي في الآل والمال وآيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وذل يا ريم والتزلما على نبيك سيد الألمين وذل يا ريم ولتسلمي على نبيك سيد العالم سيدنا محمد وذالي وزبي في الآل والمال يا من يقود للمسل المرأي علي أسرا خدتني ربي راي ولي توسل بزارات الخدر مساسيا لخينا والقدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع خصم يا سلم بدليل بلا انتهاء أدي على نبي سلباي سيدنا محمد والآله آله في الآل والمعالي يا من يوسف لذي العسر مياي بجاي يا من أمان سيا على نبي كان يمو بيسان سؤال ويوقي سيد من وسن لما سبي من لا لا يميتا صلاة ألفا تفوق عطا وهو الذي أرسل من خلقه لقلقي برمد وشوغه وهو الذي لمن عليه ألفا سلامنا وفي الجنان يلفى يا الله وسل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآل وزبي في الآل والمال يا من بجاه القبل تقلمي وسنتني المرد والمي ولي بي وابتبي هداتي ما قاب على كابر سادادي ولي بي قد جدت بالكتاب بلا مكاريا ولا إتاب وذل يا رمان سرمدا على سيدنا محمد يا من الله يا من كتابك العزيز سلبا لي وليدك قلبا وفي تلاوتي تويت للخيار جميع إن ممري والديار والي وسبي في الليل وبالمعالي مقيم العالي وذل يا ريم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزبي في الأهل والمال يا من جاد الصلوات العامية أني مذافة سلوك التامية داي جالتك جهات كل مجاهد أديت السنديات ولجعت جملة صاري ليسعيد ما تاري يا الله يا رمان يا ريم يا من بكريم نافين خصم يا صلي صلاة قد تقلد البزر مع سلامك على خير البصر سيدنا محمد ولا آلي وسبي في الليل والمآلي وقل لجبريل الأمين يوما مني بسارة تسوق لهما إلى سوى سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الشميع وخذ بسارة تدوم أبدا مني إلى سياب يا من أبدا والتسي على بدر الكرامة ألي خير الخذ لي المرامة والتجسي علي الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وسلا ودرى من الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجل الكتاب كما يشكون يا وائبا وابتلي كن فيكون يا لا وزل وتزلم كلين على حبيبك رئيس السالين سيدنا محمد وعلى آله وزبي في الأهل والمال لك بلا ذكاية من سكور يا من وابتلي مراد مرادي يا سكور وزلي يا رمان وتسلمي على الذي بي فككت ولمي سيدنا محمد والآل وزبي في الليل والمال وثب ليقزتي ونومي وزل غير جالبات لومي وركادي جلال وسكنات لك هاب من جميع الحسنات وجل كتابتي من سليومي فوق سلعات خبلت وسومي وقلب بقد ما من الألوم أما الخبير والكبير والأليم والتولي بك وبالمسافي عن كل سالب وكل مدفي وجعل طالبي من المرسدين

di am mbégte ci teew gi ñu teew fii sunu wetu kilifa sëñ Sarif Cheikh Mamadou Fadal ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sunu borom moo ko gàlle ci ak doxam mu bokk ci liggéey yi mu war a liggéey sëñ Touba dolli ko itam ko ci liggéeyu Cheikh Mamadou Fadal ndax xam na sëñ Fallou ci liggéey sëñ Touba kon nag su doomu jógee ñëw yëkkati lu am solo lii te sëñ Touba moom ko ñu moomale ko ko mu am ci ndigalul kilifaam. dañ ci rafet njor bu baax a baax di ñaan itam mu tàmbali ko ci bisimillahi rahmaani rahim waaye àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin li ma jëkkoon a wax sànq sëñ Sëriif xam naa ko bu baax du tey laa ko xam sama mag la sama xarit la nit ku baax la ab taalibe pire la julit pire la ku nekk yooyu ñaar na ku ko nekk da nga moytandiku da nga wattandiku lu bari te sàmm na maandu na waaw soxlalu kenn dara ñàq boppam lay dundee yàlla teral na ko demb jëkkës tey kon lii mi def sëñ tubaa rek tax mu di ko def nun ñii ko wuy sam sëñ tubaa rek a tax ñu ko wuy si mu nu woo war nañu cee nuyit war nañu ko wuy si kon nag biñ ko wuy see tamit liggéey sëñ tubaa sëñ Sërif ñu ngi ñaan ci barki sëñ tubaa ci barki Cheikh Mahamadou Fadal ci barki weer wii nga xam ne eh, mooy laylat laytu israa wal mihraj sëñ Fallou gane ci àdduna ñoon ko fàttali ko démb rafet naa njot loo ci tàmbali dana àgg dana barkeel loolu ndax sa xol sell na set na te liggéey sëñ Tuubaa rek nga jublu bëgg ko ànd ak taalibe yi kon nag taalibe bu am pastéef te am fula te dëggu na la jàpp ci li nga ne nit ki nga raw nag te mënoo ko jot aw làmmiñ dong lay jutoo demal te ragal bul tiit bul jàq ndax eh, yoon wa sa jaan ko jaar ba dégg ko jamono dégg la da ngay sant yàlla sëñ Fall lu ko dal liggéey sëñ Tuubaa ko teg mm-hmm. waaye dafa jaay ak njuréem jënd ko taalibe sëñ Tuubaa tëbbal ko ci biiram njëgg mu def ko addiya cër ba mu ko jul nag gis na ko màggalu démb bi ku ne xam na ni ay par parloo mayu ko ay caaxaan mayu ko mm. pas-pas ak dëgg ko may mm. ni ñu kenn jur leen kenn moom leen kenn jur leen yàlla leen moom mm-hmm. waaye sëñ Fall dalee na wan lu ko jar ñu jaral leen mm-hmm. yoon woowu nga jaar nag yàlla na la ci yàlla demal te bul xool tànk kuy mm-hmm. la ma sëñ Sall waxoon damaa ngeen nekk ci ñuy wax ci yéen waaye bëgg mën ngeen topp ci gannaaw di wax nekk leen ci kanam waaye nag leen faale kuy xool seen tànk kuy dëng kon yàlla na nga àggale ni nga tàmbalee ci barke Cheikh Mamadou Fall di sant ñëpp ay taal lañu maag sëñ maam Cheikh ndigal na fi hmm? ñëw nañ leneen loo nekk te woñ dañ da ci wis ndax yaay suñu kilifa ndax sëñ Tuubaa ak sëñ Fall lañ xoole te ñoom lu ñu digal dañ ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullah déglu leen sëñ Chérif Mbacke Falil euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu maam suñu maam Cheikh mi nga àndal di nuyu mbooleem mbokki taalibe bi fi daje di jégalu ci waxtu wi ndax xam naa guddi te yéen a ngi bàyyi ngeen seen yiit yëpp waaye nag seen maama leen ko jaral may wax ne euh, lii ñu tàmbali jii de am naa ci njort rafet lool ndax Sëñ Blaate ko jëkke woon ndax bi kërug téere yi noppee gi nga xam ne moo ko tabaxal defaral Sëñ Tuubaa daa boole ko dajale mbooleem lu fi newoon ci barkeelu lu bàyyi ko ci baax ki def ko fa te kon ne xam ne kër ga ay téere ko tax a jóg kon loolu ab joxañ la joxoñ boobee nag mooy lamp bi ma nitoo hmm. ba xalaat ni lii kon lu ko mat hmm. ma waxtaan ceeg njaboot Sëñ Tuubaa gi ñu nangul ko kon nag buñ koy teg moom mii mu ñëw di Sëñ Blaat ci ci fan yëpp ci fidwaak jom jaak hmm. nangoo liggéey gaak jàppug ñaamoram loolu damay ragal lu ñu teg suñu loxo ba noppi la rawatina Sëñ Saliou yar ko ba gërëm ko def ci moom lu bare bari xam naa am na ci xam la cay fiir ne boo gestoo ni da jàkk ji ëpp fii boo fii jàkk ji fépp ba ba ngay dem jumaay Tuubaa moo ko fi te laajul kenn dara jom jooje ak fulla joojee ak fayda joojee ak jaar googe ci aw yoon di njabootu Sëñ Blaat te Sëñ Blaat ak sëñ Fallou ni ko sëñ Cheikh Seck ñoom di waxe gaaw la ajoom laa ko gaaw bis doxu ci ci fànn yëpp nag waaw ba ci xilaafa gi waaw kon bu ñu fi bokkee dajekat man du ma def lu am yaakaar rawatina muy bis boo xam ne mooy bis bi nga xam ne ci la suñu borom joxe li mu gën a fonk ci lisam muy joxe julli juróom ñu fanaan guddi gi mu wàcce woon démb sëñ Fallou it ñëw ci ñu doon ko màggal yenn ca màggal ba nga ni sama sama njort rafet lool sëñ bi loo ci ñaan dana am te xam naa da nga ci da nga mu sotti di sant itam sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi ndax ban ko ko waxee bu ne woon bu mu jëm kaw duñ ko def waaye daf cee bëgg lool joxe tur wi itam démb lañ fa dema demaatoon fekk joxoon joxe woon waxoon nañ ko ba mu joxe ci ndigal bi yàgg waaye bi ñu fa demee démb am bayit wun dajaloon doon ko ko woon muy bayit bi sëñ bi di ñaane suñu borom wattul ko mboolem doon li mu fi bàyyi دنت كو سات غي نيك تي السمات دنت كو في يقي يقول دال تي غاتال موي احفظ متاعي واهلي والولد ودي اعطيني نيك سادي سمات ني كادر كو بام رافيت اندل كوكو داما كو داما كو نجي رك مونيما المتحف الاسلامي القديم كون كيرغي نون لا تود موي بارابو كيروك باركلو غيغا خامني barab kër barkelu l'islam la mhm. waaye guñ moomale sëriñ bi la kon nag jërë ngeen jëf dafal ñaan tàll leen loxo yi amiin. comme toi. baax na sëñ bi boo ñaanee rek baax na. barkalla lii mën naa ne balay sëbru sëriñ Mbacke maa soo alami ci gaaw.